di sociologue de formation nekk tamit euh, à conseil technique au niveau du ministère de l'intérieur en Italie très intégré taxawal sénégalais yi di xeexal sénégalais yi di jooyal sénégalais yi wax dëgg neex yàlla yàlla moom ko grand Ali Baba Faye euh, di ko ñaanal yàlla ci turu honorable député Alioune Gueye honorable député Mame Diarra Fam honorable député Nango Seck vraiment ñuy jaale sunu mag ju baax jooju di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare aljana yàlla na firdawsi nekk këram vraiment dëj bu mag la ñu nekk tiis bu nekk lañu nekk mais nag yàlla na ko teeru yàlla teg loxo ci njabootam. par rapport ak euh, la commission nationale bi nga xam ne war nañ ko voté nañu jàpp ñun ñi nga xam ne ñu ngi nekk Europe du Sud muy buntu immigration nga xam ne l'immigration clandestine suñu ñëwee Espagne la ñuy wàcc Portugal la ñuy wàcc Italie la ñuy wàcc Turquie la ñuy nekk ñu am fa ay jafe-jafe yu méttee métti métti ay doomu Sénégal nekk ci kaso bi nekk situation bu extrêmement difficile et ñu ñaan yàlla tamit ñuy ñaan vraiment ñu mun leen taxawu parce que dimbali euh, taxawu seen askan taxawu seen réew moo leen yëkkati woon vraiment ñu nekk fa situation yu jafe-jafe parfois sans aucune assistance kon nag dañuy demander euh, suñu jëwriñ yi vraiment nañu jàpp ne cette diaspora qui est di contribuer à hauteur de mille milliards vraiment dañuy am ay jafe-jafe kon su ñu nekkee ci kaso bi vraiment te yëpp xam nañu ñooy takk taxe yi ñooy takk euh, ngénte ngénte yi ñooy dëj ñooy fay école yi vraiment su ñu nekkee say jafe-jafe ñu mun leen taxaw mun leen jàppale loolu tamit vraiment bëggoon nañ ngeen jàppale ci vraiment la présidente Amsatou Sow Sidibé par rapport à la commission comme am ngeen compétence au niveau extérieur vraiment ñu jéem a taxaw tamit tous les sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi nekk ci ay jafe dañuy ñëw par rapport à ces listes qui sont au niveau des aéroports du tey la commencé des dizaines et des dizaines de sénégalais nekk ci diaspora bi waroon mën a ñibbisi mënuñu woon ñibbisi parce que ay liste ñoo fa nekkoon ñu tere leen dugg ci seen réew te boobu ñi doon wax tey waxuñu faut pas qu'il y ait deux poids deux mesures lu dul yoon du yoon lu dul dëgg du dëgg ay nit liggéey parce que am nañu yaakaar ne ñuy def dara wala ñuy am na jàpp nañ ne war nañ leen tuumaal way ki ñu jël leen leen du tey la fi njëkkee kon nag su dëgg di taxaw nañuy wax dëgg di def dëgg di def donc nañ jàpp ne doomu Sénégal yi ñu tere woon démb ak barki dem mun ñu ñëw kon ña leen tere woon je crois que ne ah, bal bi moo tourné rek donc nag ànd leen ak dal rek. laneen li nag li may wax moom mooy yàlla nee na la ma sàkk nit laa ci gën a bëgg te ku dem Rebeuss dem dans les prisons sénégalaises nga xam ne respect respect doomu aadama amu fee monsieur le ministre nañ leen taxaw si mandat de dépôt yi. monsieur le ministre salle buy def dix personnes ñu def fa deux cent personnes ay ñëpp xam nañu seen i bergerie yi seen i fi seen i ginaar yi nekk conditions yi amu fa kon nañu respecté nit ki nit ki tooñ na teg nañ ko yoon privation de liberté la am waaye war ñu ko priver vraiment ses droits les plus élémentaires kon nag nañu seet nan la ñuy traité nit ñi du dëgg du yoon ay nit ñu leen di jël di leen def ci ay deux cent personnes di wax paquetage à sentir ça da ngay am frisson est-ce que ñun ay doomu aadama lañu est-ce que respecté nañu nit donc nag loolu nañ ko xoolaat bu baax donc daal dañuy wax ne eh, situation Rebeuss war nañ ko xoolaat mais man damaa gëm ne pour pour la postérité Rebeuss dañ ko war a tëj dañ ko war a tëj mu nekk musée ba lu mel noonu dootul amati parce que ce que nous avons vécu de deux mille vingt et un à deux mille vingt quatre dans l'histoire du Sénégal loolu waratu fi am. kon nag nañ leen jël tëj rëbës mu nekk benn musée nit ñi di fa jaar ba nga xam ne la fa amoon dootu fa am ngeen fàttaliku nag sa diaspora bi ay doomu Sénégal ñu ngi ci kaso ba wax dëgg neex yaa on a besoin d' juridique on a besoin aussi de d' sociaux yoo xam ne vraiment dinañu accompagner te malheureusement dans les consulats et dans les ambassades il y a un personnel politique qui a été affecté là-bas et cette euh, amuñu prérogative def liggéey boobu di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. merci. Annie Meng jërëjëf monsieur le président monsieur le ministre de la justice maa ngi lay nuyu di nuyu sa collaborateurs yi nga àndal di nuyu ministre du travail di nuyu sama collègue député yi yaakaar naa ne xam ne doomu aadama li yàlla bind moom la ci gën a fonk moo tax président Macky Sall ñëw améliorer conditions yi nga xam ne moom la détenu yi amoon ci prison yi moo tax président Macky lu ñëw fekk ñu leen di jox 635 francs mu yóbbu ko 1000 francs ba bëgg ko yóbbu 1400 mu ni ministre wax ma foofu fan la toll. moo tax président Macky Sall ñëw defaraat dortoir yi di def ay boulangerie di defar ay do di defar scanner pour lépp loo xam ne day améliorer seen vie yokk place yi tabax ay ay ay ay ay prison yu bees kooku moo xam àq ak yelleef doomu aadama tu li fi am mosu fee am moo tax nga taxaw di ko défendre kañ nga ñibbisi yàggul lu taxoon nga daw àdduna nañu bàyyi justice bi ñuy jël naan nekkul dañ koy instrumentaliser du xamoon ne mu tuddee yéen toog leen yéen bi ngeen fi nekkeek léegi cinq mois ngeen def yéen a fi def lu kenn mos sa def DPG nga ne maa làkk loolu du viole droit de l'homme ñun viole suñu àq ak suñu yelleef nañu waxante dëgg DPG violé leen àq ak yelleefi doomu aadama yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal ñu waroon a xam fan ngeen jëm jëme askanu Sénégal loolu weesu na violation monsieur le ministre ñun xam nañ ne fi nga toog di nga jooyante lu bari ñun gëm nañ ne justice Sénégal dafa indépendant parce que bi fi président Macky Sall nekkee ku deful dara doo dem ci yoon waaye li ñuy bañ waxaguñ na def nga wala defoo ñu commencé laa am fuñ la étiqueté wala un premier ministre bu génn ne kii nangam dinañ nangam non non du Sénégal fi mu nii li fi jëlee Macky Sall du fi bàyyi keneen li fi jëlee président Macky Sall du fi bàyyi kenn kon nañu nañu nañu rafetal tey wax dëgg wax dëgg mënta weesu président Macky Sall xool li nga xam ne aw askanam bi ñu ko ko laajee bi mu ñëw ci nguur gi dañ koo laaj waxul dinaa dinaa fi dund dund dina def ne dinaa teg Sénégal ci yoonu développement parce que tey jii moo tax kenn mësu ko vaar président Macky Sall développement boobu mu waxoon. teg da ko ci Sénégal développement boobu mu waxoon sénégalais yi gis nañ ko yëg nañ ko àdduna bi gis nañ ko waaye yéen seen cinq mois yi saf na ci yéen sàpp parce que da ngeen wax lu bari te jëf ji tuuti commencé gu leen dara man nag ñaan naa yàlla ngeen ngeen ngeen doxal parce que bu ngeen doxee ma dox waaye li ma ci jaaxal mooy yéen da ngeen a commencé gut yore wax ji rek ak yore na saf bi rek ak dina saf dina saf dinañ jëli jëli leen te bàyyi wax ji liggéey leen te nit ñi sonn nañu xiif nañu mar nañu président Macky Sall li mu fi defoon ak néew dindi nañu ko subvention yi mu tegoon ci dundu askan yi nga xam ne da doon oyof dindi ngeen ko bourse de sécurité familiale xale yi doon liggéey dindi ngeen ko waa lan ngeen bëgg dañoo ñëw bëgg a suul te deewuñu du mën a nekk de monsieur le ministre dinaa voté projet de loi bi ndaxte ku ne gis na ne droit de l'homme yi ñu ko doon xeex bu njëkk dañ daa jëlee ay financement ci àll bi ñëw fii bëgg ñu dugal ci loo xam ne du suñu culture wala du bokkut ak suñu diine wala bokkut ak suñu doxalin kon dama koy voté ndax nag président mac Sall lu mu xool sayt ko ba dugal ko bañ adopté ko en conseil des ministres c'est parce que lu am important la kon su ko jomaay andee it damay xam ne ne dafa daal xam na ne ki fi jógee lu am important lu am njariñ lu soxal askanam rek la doon def kon dama koy voté ñun nii lañ fi nekkee bu liggéey jotee ñu ñëw liggéey suñu àq yi ñu li ñu yoral askan wi ñu di ko dox du ñu daw du ñu daay saa yu ñu santee ñu ñëw assemblée ñu ñëw commission des techniques ñëw plénière parce que askan wi loolu lañ ma falee woon le tribunal de Linguère monsieur le ministre depuis lañ ko defaroon ñëw nañ fa rëddoon nañ fa waxoon na dañ koy beesalaat dañu bëgg nga tabaxal ñu bu bees ndax mu gën a amélioré waa 12 ans 12 ans kenn xëyul rek ndar kepp kenn xëyul ndar kepp yàq ngeen ko waaye fi ne nii rek dina am feneen pour wax jërëjëf. merci chers collègues. Mady Dampakha suivi de Aïssatou Ndiaye. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je vous salue ainsi que vos collaborateurs. Chers collègues, je vous salue également. monsieur le ministre, aujourd'hui, je pense que je vais parler avec fierté. parce que 12 ans d'opposition